boo ko nee wàllu ndox laa bëgg mu ne waa ñu ngi ciy liggéey mu def pression ci kaw entreprise ne leen gaaw leen parce que Ngekoor école yi soxla na ndox Ngekoor lycée bi soxla na ndox léegi li ma li ma gën a marqué ci question bi ma posé mooy ndax jumaa yaa ngi am ndox ndax école yaa am ndox ndax poste de santé yaa ngi am ndox ndax école yaa ngi am ndox loolu li ma posé question boobu sama yaram dafa daw ma xam ne kii population bi ñor na ko ku mel noonu nag bu ñu amee ci réew mi ñun duñ koy ñaanal yàlla accompagner ko ci liggéeyam gunge ko ci xam ne le président Macky Sall juumul ba teg ko mu nekk directeur ndox mi parce que am na yërmande ndox boo ko yoree te amoo yërmande jaru ñu la koy jox comme nag moom am ma yërmande ci askan bi loolu moo tax tey jii ñun ñu ñu teeru ko population bi teeru ko tey jii sax dafa imaam yëpp ne woon noonu dañuy ñëw mais moom moo ne nit ñi bari ñu baaxul parce que Covid bi li nga feebar bi nga xam ne moo dugg looloo tax tey nit ñi bari ñu arrêté leen mais kuy imaam kuy directeur école kuy kilifa ci dëkk bi fas yéene woon nga ko teeru ndax disponibilité am ndax lan ndax yaram ndax yërmandeem looloo tax tey ñu daje fii tey muy directeur SONES Charles Fall ak équipe ñu ngi leen di ñaanal ci li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne defar na ko Kambanga suñu xel dal na tey ndax technique yi dañu ànd ak ñoom ñuy xool ñu ne lan moo des ñu ne pompe dañ koy dugal mardi armoire yi danañ ko monter mardi loolu kañ dal na xel loolu nag ku mu dalul de ku mu doyul defe naa ne dara du la doyati ànd na ñoom ñëw nañu ba fii lépp monter nañ ko téew yi monter nañ ko dafa affaire baa ngi taxaw lépp taxaw na li ci des mooy pompe ndox bi rek école yi am ndox dëkk bi am ndox. nee naa léegi quatre-vingt pour cent population Ngeko amuñu ndox actuellement yi nga xam ne vingt pour cent yi am ndox ndox mi ne am sax du ndox mu sell parce que ndox mu sell mooy ndox mu nuy traité traité wuñ ko dañ koy pompe rek nit ñi di ko naan kon loolu mën naa jur ba loolu nag le président xam loolu aussi le ministre Mbaye Thiam am loolu aussi le Charles Fall xam am kon quatre-vingt pour cent amuñu ndox. 20 pour cent ndox mu ni am sellul am naa yaakaar ne nag bu ñu ñëwee def lu toll nii ñu def pression ci entreprise yi ñun ñu ànd liggéey di dox eh, ñëw fii xool tra avancement des travaux ba nga xamante ne nii man su ma neexee sax man man naa gàddu ne semaine prochaine ndox mi ñu pompé ko mais nag dama ne balaa weer population bi dana naan. tey dama sol sama dàll ànd si ak ay collaborateurs euh, ñoo xam ne tamit ay experts la ñu si wàllum ndox.

dugal avons fi également si juróom benn fukki si pour nous yóbbu mi si kër si bu muccu jamono yo xamni technologie bu avancée la yooyu de!", mënul am ay fuite na liñ fi fekkone réseau bi lu lépp lu forage yi euh, lu ko ëpp si euh, lu ëpp xaaj bi si suuf si donc euh, du mat sax genn wàll li nga xam ne mooy àgg si kër yi loolu ñi am ndox wala am ay ndox donc ñu nañ si tamit améliorer qualité ndox mi forage qualité ndox mi amul te dara amul ay euh, non conformité en tout cas si euh, li nga xamni ni moom ngañ koy xayma and ci ak organisation mondiale de la santé répondre na à nos normes tabax ngañ fi mbalka château d'eau bi nga xamni ni 1 euh, million 100 000 litres lay jànc ci ndox biñ ci fekkone euh, ñaari témèr la 200 mètres cubes suma euh, donc euh, danaka multiplier par 5 hein. et également pour que quartier quartiers nga xamni dañoo kawé ñu mëna gëna 24 heures sur 24 Le réseau bi très nañ le des ci liggéey bi moy équipement yi ñu monter équipement yi forage bi boko ko mu ngi danaka à plus de 200 mètres il faut nga dougal fa pompe def ay machine il faut tamit également ndox mi doole bi amna ay machine yo xamni ay ñokoy koy un poste de chloration yi indi fi courant bi nak fi courant bi agsiwul won ba suñu forage fi donc xëcc nañu tamit ay kilomètres euh, si ligne électrique mais nous mettre quoi à niveau donc liggéey Bobo, fii ak euh, ay semaine Inch'Allah, allah euh, du mat weer dinañ ko pare ndax li ñu gis bu dee technique diam la jàmm am Inch'Allah, allah dinañ ko